assalamualaikum bokki téléspectateur u xewel gi TV ba tey rek ñu and ak yeen fi ci tayba ñassen eh, di magal eh, juddub maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala nu ñu eh, nek ak ben pèlerin bo xam ma nga bàyyee ko ba Casamance serigne bi assalamualaikum no tuddu ak fo bàyyee ko. waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi tuddu Basirou mbaw jógee Casamance dëkk bu ñu wax Touba Mouride. serigne Basir nga ñëw ci dëkk bu sel bi. Euh, muy dëkkub euh, Maolana Cheikh Ibrahim mu juddoo fi juddum bu sell boobu Serigne Bassirou lan nga nu mën a wax ci ku tedd kooku di jàmbaari lislaam Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu waaw macha allah loolu danañ ci kontaan wax ci lool muy koo xamante ni boo ko xoolee rek léppam gëneel la Cheikh Ibrahim mooy koo xam ne euh, doomu aadama loo tuuti tuuti gis boo xoolee rek di nga xam ne nii ne. Euh, royteefu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la parce que moom moo ne man euh, topp ma ci kaw kenn ku du yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne buy dox rek maa ngi dox topp ci kawam bu taxawee rek Ibrahima xamatut dem na sax boo xam ne euh, xaqiqatu Muhammadiya sallallahu alayhi wa bu ñu doon photo tey porte lay bu ñu dóoree rek mu ne jëmm yi Baay Ñas du génn jëmm yonent yàlla man mooy génn kon kooku wax dëgg yàlla moo lay xamal na ne ku jeex si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la moo tax ñun ñii di ay ndaw jóge ba Casamance ñëw fii nii ñëwuñ fi ndég dara ndég yokk taalibe toujours fu muy amee xitma si sëriñam ak ni muy def ba yokk rek loolu lay ut loolu moo ñu jëlee Casamance xuus manding mi ñëw fii nii pour sàkku barke sàkku ngëneel yàlla defal ñu tiyaabo Baye nag moom moom la mu waxoon rek àdduna Sénégal xamaguñ ma waaye dafa mel ni ne mu ngi war mu ngi wax jam waxoon tey mu ngi mu ngi ñëw ndànk-ndànk parce que boo xoolee Nigéria mbooloo ma fa feeñ nga xam ne amul si àdduna bi fu mu am loolu moo lay xamal ne Baye Niass koo xamante nii la kenn la ci kaw suuf moom daf ko bañoon ba dafay wax ne képp fépp foo xam ne ngëneel nekk na fa rek Ibrahima dana la jox loxoom pour lan ñu mën a xeexal diine l'islam mu taxaw loolu rek moo doon ay ngëneelam. sànq rek maa ngi laaj benn borom xam-xam muy sama sëriñ sax imaam Thierno biñ ko laajee ne ko lan nga xam si lan nga xam si Baye ak sa ak euh, sëñ Fallou mu ne ñoom ñaar ñooñ ku bëggante loon lañ mu ne dañoo bëggante woon ba Baye fépp fu mu mosoon a jóg di tukki sax dina dem dana yëganteeg euh, sëñ Fallou sëñ Fallou buñ mosaan a jóg war a génn sax dana dégganteeg Baye kon wax dëgg yàlla kilifa googu noonu. buñ ko amee Sénégal ñaari kilifa yooyu nga xamante ni seen wayjur yi si wayjur yi sell lañ nga xam ne Sénégal rek buñ bëggoon ndam nañ gëm ñaar ñooñu rek bu buñ leen gëmee sax adduna bi lépp mucc nañ ci tafaar yi ngay gi dégg coow yi ngay dégg histoire yi ngay dëgg feebar yi ngay dëgg yëpp ndekkoon dañ ciy mucc te loolu yëpp du dara lu nga ngëneel gi nga xamante ni ñu ngi koy sakku ci barab bii nga xamante ni bàyyi fi la juddoo nga xam ne fii ak poroxaan boo ko doon natt tey passe 40 kilomètres wala nga xam ne nii 50 kilomètres kon ñaari wàllu yàlla bokk benn gox macha allah lool ngëneel la si Sénégal ngëneel gu rëy la si Sénégal kon yéen ñu ngi leen di ñaanal bu baax waaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur xéwal gi TV ñu àndoon ak euh, pèlerin bi nga xam ne ma nga bàyyee ko ba diwaanu Casamance Serigne bassiru Mbow kon Serigne bassiru nga tàggatoo euh, ak mbooloo mi ñu jox dig daje beneen yoon incha allahu rabbi